salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki eh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak seen site di Assalaamy TV eh, ci biir site bi ñu àndandoo ak Assalaamy point net ci YouTube bi ngeen di bàyyi xel Assalaamy TV ñu ànd ak yéen ci biir site bi ci seen rajo Assalaamy FM ñu ñëw fii nag ci kër maam Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh ci néeg bi nga xam ne fii la Serigne Modou Mamoun toogoon woote màggalug Touba ci ginnaaw Cheikh Mahamadul Fadal Mbacké ca atum 1948 muy màggal gi ñu jëkk a daje ci Touba euh, ginnaaw bu sëriñ bi demee Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim dem fukki fan ak juróom-ñett ci safar yi nga xam ne moo dëpp woon ak le 12 euh, août 1895 euh, ca départ ba nekkoon ca Mbacke Bari bis boobu la sëriñ waa waxoon ne saa yu ma ci accepté na ngeen ma ci sant la yàlla kenn ku ci nekk li dale ci gëléem ba ci ganaar loo mën nga def ko ci eh, bis boobu nag tey jii moom la ñu yendoo tey jii ci eh, le 17 eh, octobre yemoo ak le 18 safar 2019 ci teewaayu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ni ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér. ñu toog nag ci kanam ki nga xamante ni bii taxawaayam ci yoonu murit kenn du ko nattable taxawaayam ci lislaam it di setu ko nattable waaye taxawaayam ci biir Daaru Salaam kenn dutu ko nattable. ñoo ñoom fekk fii nag ci kër gi taalibe yi yéen a gis noonu jaar yi ak seex yi nga xam ne wan nañ leen ko ñoo ñëpp aju ci ginnaawam di déglu ndigalam muy déglu ndigalu Serigne Touba mu fas yéene yëkkate ay kàddu ci bis bu tedd bi nga xamante ne bii <clears throat> moom la ñu yendoo tey jii. noo nuy nuyu mbokki jullit yi ñuy déglu ñëpp ak mbokk yi ñuy déglu yëpp ñu nu bokk ak ñoom sunu maam Adama waaye nag rawatina mbokki taalibe yi murid yi nga xam ne. noo ñoom noo bokk Serigne Touba euh, di leen nuyu ci bis bi ci ndi ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér bis bi kat kenn sañu cee wax dara kenn sañu cee def dara kenn amu fi ab taalibe ku sëriñ Serigne sëriñ Serigne nag mooy sëriñ Mountakha Mbacké te mate ko sëkk wan nañu ak taalibe ci kanam kilifaam yi ko jiitu ban jàng ci moom ak taalibe kon ku bëgg a mel ni ab morit war mel ci ni ko sëriñ Tuubaa bëggee ak ku bëgg a àgg ci suñ borom ku bëgg am ngërëmul sunu borom loolu mooy murit ku bëgg ngërëmul suñ borom ku bëgg àgg ci yàlla loolu mooy murit Eh, ku bëgg loolu dangay roy ci sëñ Muntaxa ca nam doon doxe ak kilifaam nun nag noo ngi koy roy te duñ ko bàyyi mukk ba tey ji muy sëriñ Tuubaa nu ngoy ci moom ak suñ fukki loxo ak mboolem nag képp koo xam ne noo ngi ànd ak yow ci mboolem ñi ko nangu tam ci waa Daaru gépp mm, noo ngi ngoy ci sëriñ Muntaxa ak mboolem ñi nga xam ne euh, ànd nañ ci tey sëti maam Cheikh Anta tey njabootuk maam Cheikh Anta xam ne la sëriñ la maam Cheikh Anta yoroon sëriñ Touba moo ko joxoon kon tey jii sëriñ tubaa sëñ Muntaxa mooy sëriñ Touba sëriñ tubaa nag li mu am dafa jafe yi mu am nag neexut a lim waaye bis bu mel ni màggal Tuubaa gi mënees na ko ci xool ndax kenn ku ne bis ba nga amee mbég ba ci sallallahu alayhi nga xam ne moom la sëriñ tubaa doon liggéeyal bis ba mu ganee àdduna lañ koy màggalale muy laylatu mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëriñ tubaa bis bi mu liggéeyal bi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom teg ko nattu bii ko tubaab yi jële ci réew mi génn ko juróom-ñetti at yu manqué tuuti bis boobee di bisum mettit daje ak 18 safar moom la ñaan ne képp kuy sama mbokk képp ku ma xam képp ku ma bëgg nga ne ma ci sant yàlla ndax nattu bi ma sama borom teg ci liggéeyal yente bi sallallahu alayhi wa ak jaamu sama borom ba tubaab yi defe ne dama bëgg a def jihaat ak ñoom te man soxlawuma la ñu yor soxlawuma nguuruk àdduna nguuruk sun borom rek laa soxla kon koo xam ne sa bisub tiis ak sa bisub naqar mooy sa bisub feet ba mag ñi tudde woon ko tabaskiwaat ku jëwuñ ci màggal gi danga xam ne lii moo raw tabaskiwaat màggal moo raw tabaskiwaat ndax tabaski ay xar lañ ciy rey ndax roye ko sunu maam Ibrahima ca nam doon def ak sunu maam Ismaila waaye màggaluk Tuuba ay gileem ak i nag lañ ciy rey kon la Sëriñ tubaa waxoon ne bu leen ko tuddee tabaskiwaat ndax day niru bidaa waaye na ngeen ko tuddee sant sant la ci yàlla sant la ma yonent bi sallallahu alayhi wa moo dikk kanam la jëm itam dama defee ne taalibe yi ñëw ci màggal gi am na ci ñoo xam ne sax dinañ bëgg a ziyaare seeni sëriñ mu jafe ndax mbooloo mu bari ak xataay bu bari ndax am na ñoo xam ne ñi dañuy ñëw ci màggal gi ñoo xam ne duñ doon sax ay murit waaye bis bi moo rëy ci ñoom am na ku ma ci nuyu léegi ma am kàddu yu jokkalante waaye magal gi doo xàmmee kuy murit ak ku dul murit noonu it noonu rek lañ koy gisee dañoo jàpp ne bis la boo xam ne mu fête de l'indépendance ñooy ci senegal ndax dafa mel ni bis bi Serigne Touba yi sant li ci sant la sant la ko boroomam dafa mel ni fête de l'indépendance la ndax bu bis bi amutoon mu dem ci géej gi euh, li euh, wuutu ca mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñoo doon taxawul islam fii ci senegal kon mel na ni indépendance der bu ñuul du gaawee noonu dana mel ni indépendance l'islam it du gaawee noonu ndax tubaab yi yoroon nañ doole sayer joo xam ne jaasi mënut a xeex ak ñoom fiital mënut a xeex ak ñoom baatin rek a mën a xeex ak baatin boo xam ne nag suñ borom day ne ci biir rasulullahi ne ci biir pas-pas ne ci biir pas-pas nag ku ko xamut mooy njëlbéenug lislaam lislaam bala ñuy nangu sag lislaam da ngay am pas-pas fas ko ci sa xol wax ñaari baati seere yi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu kat lay yëfari màkk yi doon bañ rasulullah yi wax ko ci kaw kaaba ga loolu la yëfari màkk yi doon bañ rasulullah yi wax ko ci mboolem xare yi mu wax yi mu def yëpp kon nag ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jib na ay yoon niñ ko doon waxee rek bërki démb ci masalikul jinaan bi ko tubaab bi jàppee ci weeru septembre wi ñu génn yóbbu ko ndar ba atte ko fa ba wax ne dañ koy génn réew mi ndakaaru gii luñ ko ndakaaru lañ ko jaarale dugal ko ci kaso bu xat ba muy wax ne ida dakartu dalikal mabita ba mu fàttali koo day guddi gi ma fanaan ci kaso boobee sama xel day naaw bëgg a dem ci jihaad waaye rasulullahi tere ma ñu baax ñëpp tere ma nee ma bul jihaad ak ñëw waaye guddi googee lu tax masalikul ginaan tasante ak weer wiñ ko indi woon ak fan yi ñu ko indi woon ndakaaru ak fan yi ñu ko duggaloon ci kaso ba lu tax mu tase ren jii fi suñ Muntaxa nekke lu tax mu tase kon sëriñ bi kay ña ko dugaloon ci kaso ba dafa mel ni doon bëree ki mbër da doon bëree mbër daan ko mbër nag ku daan ku ñu booleeg mbër nga daan ko sañ ngaa bàkku masalikul jinan taxaw soror yi taxaw ñu wax ca ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu ba fu di ko dégg ci ndakaaru ak li ko wër kon nag loolu mooy bàkku ci ashhadu an laa ilaha illallah wa muhammadan rasulullah loolu mooy bàkku gu wér kon sëriñ bi soror yooyu dafa tàllal ay loxoom mooy ñaari loxoom ya mu tàllal di bàkku moo waral jumaay Masalik ji e, demee noonu mu deme ak yeneen yu làqu ci biir yoo xam ne su koo wax kon bisu màggalu Tuubaa mooy bis bi nga xam ne ci la nattu bi nga xam ne ci la ko tubaab yi yóbboo ci géej gi ba mu liggéeyee la mu liggéey ba maam Cheikh fekk ko fa ba mu wëññi mu dikk suñ boroom won ko ne ko Daaru Salaam nga war a wàcc sa njaboot fekk la fa képp ku yaakaar fekk la fa say bokk fekk la fa moo tax ba mu wëññi ko mu wàcc Daaru Salaam def fa fan yam fa def yëpp maam Cheikh di ko berndeel di ko bégee ñépp di ko bégee bisu ko ba moom la maam Cheikh di màggal muy bis bi mu jógee ci géej gi ñëw Daaru Salaam ba mu wàccee ci ba mu ci géej gi wàcc le 11 novembre ñëpp xam nañ la ci xew ak xew-xew yee na mu demee waaw loolu lépp day guddal waaye daal lii mooy màggalu Tuubaa nu nekk ci di ci liggéey kenn ku ne xam na ne taalibe yi xër nañ ci gis seenu sëriñ waaye sëriñ bi it mënta am jàmm mënta wërta tala lekk wërta tala naan julli rek la war def li ñu des mu jox ko taalibe yi ngir jëmi sëriñ Tuubaa loolu mooy liggéey bi mooy lu nekk te nekk ci e, nekkal ci sëriñ bi nekkal fi sëriñ Muntaxaa ndax ñëpp kat buñ mënoon a àgg ci sëriñ Muntaxaa dañ fay àgg muy Serigne Touba waaye Serigne Touba moo fàggoo noonu teg maam Thierno fee teg maam Cheikh Anta fee teg Sëñ Massamba fee te teg Sëñ Cheikh Thioro fee teg Sëñ Balla Thioro fee teg Cheikh Ibra Fall fee teg ñeneen fee ñu mënta agsi ci Serigne Touba di yem ci ñoom noonu la ko Serigne Touba séddalee Cheikh Issa Dieng ak ñëpp kon nag noo ngi feddali sunuy laxasaay nun waa Daaru Salaam gépp di ci fasaale mboolem taalibe yi taalibe yi Sëriñ Tuubaa yëpp ñu feddali sunu laxasaay ci bis bii di màggalu Tuubaa di sant itam waa Daaru Salaam TV ak waa Assalaamy TV eh, ak Assalaamy FM ci seen taxawaay bu rafet ak mboolem waa presse bi nga xam ne dañoo mànkoo ñoom ñëpp ñëw ci màggalu Tuubaa gi ngir wasaare eh, li fi xew ngir lislaam gën a yaatu ndax lii kat wax naa ko léegi ba nga xamee ne tubaab bi dana woon làmp bi du tàkk mbooloo mi duñ fi dajee ku fi dajale mbooloo ñu tas ko te jii ku jóge njaareem jëm si Touba mala nga ak si jumaa ji da xam ne la tubaab bi bañoon lépp am lépp lépp lépp lépp lépp lam bañoon lépp am na te sañuñ koo bañ mbooloo maa ngi ñëw kon yéen waa presse bi mën na si leen a ñàkk sant ndax tasaare lii mooy tasaare lislaam mooy tasaare mbégum lislaam mooy wane ne euh, lu waay taxawal ngir lislaam suñ borom dana ci ànd te suñ borom lu mu ànd ku mënta daaneel suñ borom mënoo ko daaneel lu rasulullahi ànd ku mën a fay tur rasulullahi doo ko mën a fay kon nag ñu leen sant bu baax di leen ñaanal bu baax di ñaanal mboolem taalibe yi ñu ñaanal mboolem jullit yi ñu ñaanal mboolem réewum Sénégal jërë ngeen jëf.